article 10 fukkeeli ci lu wër nit ku ne mën na egg ci bérébu àttekaay wax li ko naqadi ci anam gu jub te bañ a ànd ak par par lu ne dañ ko taxal